أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المرات bon ñu ngi fii ah. di waajal marche bi te li ma ci métti mooy policiers yi dañu yokk kaani gi ci lacrymogène ma gis ay jigéen gis ay mag ba boor xam nan la ñuy waajalee lacrymogène yi saf yi lacrymogène yooyu man en personne man naa cee wax ndax damaa fekk yu juuf fekk fekke bu fi ñëw rek fekke naa ko ndax depuis 76 laa dugg PDS lu ñëw dinañ ko dékku ndax daf nu ko jaral Karim ñëw buñ koy tëj ñun ñëpp ñuy bokk tëj bu nuy rey it ñun ñëpp la ñuy rey comme Macky Sall moom leen na lay bañ ku tudd Karim fitam dem ay nitam ku nekk commencé def ay sorti Karim rek Karim rek Karim Karim Karim Karim Karim ci réew mi ci turub Idrissa Seck président Idrissa Seck pour wax que ànduñu ak li nga xam ni moom le président Macky Sall nekk di def. mënuñu dem ci élection yu am solo yu mel ne élection présidentielle Macky Sall doon candidat à la candidature moom kese moo yor électoral moom kese tey jii nii. moo mën a wax kuy dem ak ku dul dem doon candidat ni man maay tànn sama benn partisan ministre pour mu organiser élection yooyu man maay wax ci fichier électoral bi ñan ñooy doon électeur ak ñu dul doon électeur après ni classe politique bi ñëw leen ñu dem élection présidentielle loolu leen ni jaaduwul te duñ ko seetal liñ koy wax ci message bu simple mooy lum ko jaral pour toog jaral nañu ko ñun opposition bi pour mu jóge lum ko jaral pour tey jii nii dem ci élection yi nga xam ni du élection yu jaar yoon jaral na ko opposition bi pour élection yooyu jaar yoon ndax suñu démocratie démocratie bu mag la bu ñu bàyyi président de la république tey jii nag lépp lu fi am fileeg élection présidentielle na xam ni moom mooy responsable moom moo dégluwul moom moo mënul arrêté boppam moom moo nekk om ni omnibulé wu par un deuxième mandat ba nga xam ni gisul li peuple bi di wax gisul li classe politique bi di wax li boppam ak xelem rek di wax ci la nekk di def te lépp lu bon la lu yées la pour sunu démocratie donc na xam ni daal jóg nañu taxaw et que ko jaral rek ñun jaral nañu ko ndaxte suñu réew moo nu ñor suñu démocratie moo nu ñor te seetaan mu koy nasaxal. fi gis benn Adjara tur bi soxna si. Adja Marie Aw je m'appelle Marie Aw. Marie Aw jógee fan. jógee Kër Massar. ñëw tey ci bés bu mag bi ci bés boo xamante ne c'est marche de la restauration des droits humains de notre candidat Karim Meïssa Wade. Je suis venu avec toute la population de Kermassar, en particulier avec celle de la banlieue. Nous sommes venus dire aujourd'hui à Macky que les droits de l'homme, les Nations Unies ont demandé à ce que Karim Wade soit dans ses droits. Parce que le procès de la CRI, c'est un faux procès. Et nous sommes venus aujourd'hui dire candidat. est-ce que Karim bu ñëwee duñ ko tëj. comment. est-ce qu'il ne sera pas emprisonné. on n'a pas peur on n'a pas peur d'être emprisonné s'il faut être emprisonné pour lutter pour la restauration de la démocratie au Sénégal Karim Meïssa Wade sera en prison il ne sera jamais il n'est pas question que Macky Sall bayoon nos on dit non Karim day ñëw par la force day ñëw. Inch'Allah. waaw Karim day ñëw par la force day ñëw moom la suñu soxna su baax si def li nga xamante ne bii moom mooy allocation boobu kon ni nga ko xamee waaw ñu ngi fii waaw Karim si defe naa ne ñoo fi gën a bëri sax parce que parti yi nga xamante ne bii ñoo bokk ci coalition bi ñu ci bëri gisaguñ leen xanaa ñoo avancé kanam amaana ñu gis yeneen. salaamaaleykum ñi ngi ànd ak waa grand parti ki ñu sàllal suñu micro moom mooy kan sax. Babou Dieng nekk ci. grand parti bu Malick Gakou. ak Guèye lan moo leen seen mouvement bi la li ñu yëkkati si lenn rek la muy ñaxtu. ndax li xew si réew mi ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo yéen ñi sax nekk sax ay journaliste xam nga li xew si réew mi neexul leen neexul kenn. Macky Sall dafa ñëw si réew mi bëgg fee jaay doole muy lal forcing loo xam Sénégal xamuñu loolu fii réewum teranga la dëkku jàmm la xamuñu xeex xamuñu xuloo boo dee xool force rodd yi yokk na ko gendarmerie yokku na lépp pour pour lal fas yéene jaamaarloog askan wi yaakaar naa bi nga koy jox réew mi loolu tax lu ñuy xeex mooy loolu waaw. est-ce ne euh, bras de fer bi su ngeen ko entamé du ngeen ci perte. non je non non yaakaaroon perte dina saa pour xam nga perte dina am moom tey doole doole ju mu am ñoo ko jox kon kon doole bi ñun ñii la de tey force l'ordre yi. te jàpp naa mun ñoo xeex xeex am am teer xeet am fi mu yem ak ñun te boo xool bu ci loolu ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñii seen i jarbaar la ñii seen mag ñii seen baay nañ kon jaaxal na kon force loolu doole bu amee kon kon ci moom kawam lay këpp ministre Aly Ngouille Ndiaye ne dem leen ngeen uti leneen lu ngeen def waaye organisation élection yi moom la lépp lu jëm ci fichier bi tam a ngeen koy jot 15 jours 15 jours avant xam nga xam nga c'est-à-dire <laughs> mu waxaloo kon jaay doole fa fa la mën a yem ñun amuñu amuñu amuñu xel ñaar ni parrainage bi mu ñu laaj ñu dinañ am lu ko ëppal nañ ko déjà grand parti clôture na ak bu ko ay ay parrainage yàgg nañ mais lu ñuy xeex ñuy ut ñoo xam te ni zone neutre ñu jël élection yi organisé comme ni ko Abdoulaye Wade defee woon ñun loolu lañu xaar Ali Ali Aliou Ndiaye dafa war a xam ni moom na am ngor na am jom moo xam ne lii fi nekk nii lu fi jaar lu fi jàll la moo xam ne askan wee ko jox bu mu jaay ñu doole te moo xam ne doole mooy doole mooy ñun ñii kon kon bu leen ñoom lu ñu bëgg mooy élection na nañ ko teg si yoon jaarale suñu yàlla lu ñu xeex mooy loolu te lu ñu ci mañ ma sàmm lu ñu ci mañ dem lu lépp lu ñu ci am jël waaw comme noonu animation boobu ko joxe ñi ngi ànd ak monsieur maire Cheikh ak délégation bu am solo boobu ngir fekkee li nga xamante ni bii gor ñëpp dañ ko war a fekkee tey ngir mbir mi nu mu toll moo tax jotuwaay bu mel ni dañ ko war a jox kon monsieur le maire yaa ngi ak waa Mouslikh point international sant yàlla julli ci sangu-sangu yi Seydina Mohamed Khalifa Ababacar Sall teew fii ci marche bi nga xam ni opposition bi moo ko woote li tax ñuy marche nag defe naa ne leer na nañ ci bopp ñëpp moo tax ñu war ko leeral nit ñi képp ku mu leer sa bopp war nga xam ni taxawaay bi ci nga war a bokk ndax mooy taxawaay bëgg sa réew taxawaay fonk sa réew pooxawaay liggéey sa réew li ñu wax leen rek la mënuñu ak fi ñu jaar yëpp ak fi réew mi jaar yëpp ak alternance yi fi am yëpp mbirum élection doon coow ci biir réew mi kooku xel mënu ko nangu dëppoowul ak suñu réew dëppoowul ak suñu ay gëm-gëm ak suñu ay gëm moo tax ñu ni nañu def élection yu leer nañ élection nag pour mu leer xam nga fichier daf ci am solo moo tax ñu ni fichier bi nañ ko jox ñëpp ñi nga xam ne dañu bëgg jël réew mi ñu saytu ko ñëpp mànkoo ci fichier bi aw na yoom mënees na cee liggéey ñu d'accord ci leneen li si des mooy carte yi nga xam ni nit ñi bindu woon nañu pour jot seen carte ba léegi ay junni junni nit jotuñu seen carte boo demee fii ñu ne la ma nga fale nga dem faa ñu ne ma nga feneen loolu lan lay nuru mun loo bindoo ci Grand Dakar ñu naan la sa carte nga dem bankaan yi xel mënu ko nangu baa nga bindoo Thiès ñu ne sa carte nga Fuuta loolu xel mënu ko nangu baa nga buggi na Fuuta ñu la sa xel sa carte nga Kaffrine loolu doy na te tey na xel leneen li ci topp mooy galgal bi nga xam ne dañ ko dugal gulee ci élection ñu koy tuddee parrainage ñi ñu war a pare ni ñu ci bëri amuñuy carte loolu yëpp pour lan la ndax mun loo dem ci làmb ji ni da ngay bëree di tànn ki ngay bëreel loolu loolu ku ragal wala ku gëmul yàlla rek moo koy def làmb ji saaj na ku bëgg bëre na nga ñëw bëre loolu doomu Sénégal yëpp war nañ ko xam moo tax na ñi nga xam ni dañ leen bëgg faagaagal ba duñ bokk ci élection yi xel mënu ko tax taxawaay bi doon taxawaay bu am solo waa réew mi xam ko waa bitim réew xam ko am ci loo xam duñ ko nangu te duñ ko seetaan moo tax ñu def lii nga xam ne moom la ñu def muy début commencement li nga xam ne moom la ñu fas yéene def fekk soppiwuñu lu soppiluñu taxawaay joxuñu lu ñu leen di laaj defuñu lu ñuy wax élection du mën a ci réew mi li may mujjeel mooy xam nga élection Abdou Diouf bi mu koy def opposition bi ni ko mënuloo am ku far ci yow di organiser élection dafa tànn ministre boo xam ne ministre indépendant la woon mu organiser élection Abdoulaye Wade bi ñëwee ni ko élection yi aussi loo ko def ak sa waa kër di ko organiser dafa tànn koo xam ni féetuwul fenn mu organiser élection yi loolu ko doon xeex dem Macky Sall ak nguuram bokkoon nañu ci kon nag max jàpp ni ñoom war nañu mën a nangu ñu tànn personnalité indépendant wala structure indépendante pour mu organiser élection yi loolu duñ ko nangu ndax réewum Sénégal war na bokk ci réew yi nga xam ne ci àdduna bi ci réew yi nga xam ne ba léegi élection mënu fa am ci anam yu sell dëppawul ak suñu gis-gis dëppawul ak suñu ay jaar-jaar bokkul suñu ay bëgg moo tax duñu ko nangu duñu ko nangu. monsieur le maire est-ce gis nga ne démonstration de force bi dina tax Macky Sall dellu gannaaw. eh moo xam ndax dina dellu ginnaaw wala dina dellu ci kanam ñun daal ñu ngi def suñu wareef lii moo ñu war mooy taxaw wax li nga xam ni moom moo ñu ñor te defe naa ni dana ko dégg. ñi ci biir réew mi dañu ko dégg bitim réew dañu ko dégg jamono ji ñuy wax ak yow réew mi mi ngi tagga témbe ci fànn yëpp mais jamono jooju ñoom ñi ngi jël alalu réew mi di ko pasar pasé di ko jënde ay nit pour ay pare wala nit ñi ñëw ci ñoom te waroon koo def ci réew mi ak luy doxal réew mi ci doomu réew mi liggéey am usines yi doxaat réew mi doxaat ceeb yi nii naat marché yi doxaat mais gis nga li réew mi fi ñu toll na te jafe na fépp mooy ci réew loolu daal mooy li xew ci réew mi te doolu duñ ko nangu ndax ñun réew mi moo ñu yor looloo tax Khalifa Sall ñu ni ñu ngi ma def fii ñu ma def waaye mel na ñu defuñu parce que yëgalu ma ko seen yaram li ñu may tuumaal dara du ci dëgg da ngeen dem saa yu ñu wootee ngeen taxaw fa bu ngeen fa taxee mel ni maa ngi fay taxaw ñu ngi koy nuyu mi ngi nuyu askan wi di leen jaajëfal di leen wax ni xeex bi rek mooy xeex bi jar a xeex ndax mooy xeexu moom sa bopp xeexum njaam jeexoon na démb. sant ngërëm ñeel حساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المرة باحتساب لقد تنبح لكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب